Euh, maam Fallou maa ngi lay jaar baax a baax xam nga ne Macky Sall bii ne Kaolack ba léegi dafa fanaan dafa yen dafa fanaan Kaolack teguñ ko pression boo xamante ni taa diw tàngi jir mais ay góor jigéen lañ góor jigéen boobu deewoon noonu dafa fës rek mais borom dawalkati jakarta yeeg imaam yeeg chef de quartier yeeg ñoom ñëpp katt seen ndey nekk góor jigéen ndax bu ñu doon góor jigéen mooy Macky dañ ko teg pression ba du sax ah, naan Kaolack la fa am ñaari fan Ah, di ger ay Amar Khalifa Niass ay maayeeg seen xalif seen a ñuy ger ñu lekk bu suuf daw seen responsabilité yéen sacrifié leen normalement révolution Sénégal biir bu Kaolack taxawoon rek occupé point yëpp Kaolack nga xam ne Carrefour la dara du dem dara du ñëw économique Sénégal day taxaw ko Mbour raseendu ko Diamniadio raseendu ko Tëngéej Sénégal moom économique day day day bëfuyu mais Kaolack ñoo gën a xotti seen la fanday mais seen dara du sedd Ousmane Sonko keroog ba mu nekkee député xaaj salaire bi jox ko pépinière bu Kaolack yéen la njëkk a yéen la a ah wax ne carrément seen xorom si rek war na mën a développer Sénégal lépp ngeen katt seen lëfanday di ngeen woteel Ousmane Sonko bu xeex bu xeex jote ngeen ne buq bu xaara toog nekk seen juwaay di xacc course waa Kaolack nañ katt seen lëfanday génn xeex wala ñu xotti seen mutu nday